Leewtoo production moo ñu fi woo ci jiital ba Pape Thialis ndeysaan xale yaa ngi noonu dox ci diggante Doudou Sané ak Toubacouta ndeysaan Toubacouta ak Doudou Sané du yomb Doudou moo jël démb fële ca Fimela moo final bërki démb ca Fatick tey mu ngi waat fii ci Ndangaan loolu mooy làmb xale yi ñu ngi gën di yokk seen bopp ci sport bi arbitre bi àtte na lu mu wax ak ñoom ndaysaan arbitre bi lu mu wax ak ñoom ndaysaan arbitre bi lu mu wax ak ñoom ndaysaan ndaysaan Doudou Sané bi sufle waat na dox ci diggante Doudou Sané ak Toubacouta Toubacouta Doudou Sané ngi def ndànk rek Toubacouta jëli na ko Doudou Sané takk na ko wéyale na ko mu bañ Toubacouta sol na ko Doudou Sané ngay dagg gàllaaj di sànni ndaysaan bëre Doudou Sané nag bëre bandi la kenn du Toubacouta nee na ko tey du ma la may dara munoo finaalu barki démb jël démb tey ñu daja mooy loolu ndaysaan ndaysaan avertissement nee na da koo mbëkk ndeysaan nee na da koo mbëkk arbitre bi siflé waat na ndeysaan am na ku gaañu ndeysaan am na ku gaañu Doudou Sané Toubacouta arbitre bi siflé waat na ba tey Ndeysaan arbitre bi siflé waat na ba tey Ndeysaan kooku auditeur bi moo yëngu Kaani Sadam tëdd na auditeur bi moo yëngu Ndeysaan ñu ngi noonu Doudou Sané ndeysaan ñu ngi jàppante ñoom ñaar ba tey Doudou Sané Toubacouta jàppante nañ ñoom ñaar ku nekk teg na sa bopp ci bopp morom ñoom ñaar ku nekk teg na sa bopp ci bopp morom bi fu ñuy mujj ñoom ñaar Toubacouta ak Doudou Sané fii ci Ndangaan du yomb ñu ngi ci goxu làmb mbëkkaat na ko mbëkkaat na ko mbëkkaat na ko wala déet mbëkkaat na ko mbëkkaat na ko mbëkkaat na mbëkk na Doudou Sané ñaari yoon ndeysaan arbitre bi nga koy ndeysaan Doudou Sané de moom na muy bëree ma nga dal rek concentré wu ci combat am Toubacouta bu génnee perte combat bi ndax am na deux victoires wala deux deux avertissements Toubacouta am na deux buux nga génn nga ñàkk compétition bi noonu lay def yow waaw waaw da ñàkk romb na ndeysaan ku génn. arbitre bi nu muy def arbitre bi nu muy def waaw Doudou Sané moo waaw ah, waaw saako yi fekkiwul kenn yéen a fekki saako koo bëggoon buux mu bañ lu xew ma suñu ndeysaan bi siflewaat na dox ci diggante Toubacouta ak Doudou Sané Touba am na deux avertissement Doudou Sané benn boo ko mbëkkaatee nag di nga ñàkk sa combat yow Toubacouta ndax da koo mbëkk ñaari yoon jël avertissement sol na ko Touba sol na ko Touba sol na Doudou Sané fu mu jëw moom Doudou Sané da buux mu génn saako yi da génne ñàkk na Toubacouta ñàkk na Toubacouta ñàkk na. ñàkk na wala déet 2 3 jeex na nee na ko 5 nee na ko daan naa la juróomi yoon kii ko daan naa la juróomi yoon loolu la ko wax daan naa la juróomi yoon mu na ko waxoo dëgg ndeysaan ñu ngi noonu lamb jaa ngi noonu dox ci diggante Toubacouta ak Doudou Sané mënul yomb. munul yomb déedéet munul yomb Adama jëlal ña ngay coow ña ngay coow